ay li xew ci jamono ñu wattandiku ko rek waaw ndax itam yonent bi dañ ko ni ndax am nga nawle mu ni déedéet aw nawle kay ndax man la mag ñépp jox lépp kon aw nawle ñu ni ko ndax am nga wujj mu ni waaw ñu ni ko kuy su wujj mu ni Musaylimatul Kazzaab ndax moom rek ko toppandoo donc moom rek ko toppandoo Musaylimatul Kazzaab mooy sa wujj waaye toppandoo baaxul waaw góor gi dafa daan wax ni doom ku mënula roy dafay jëkke waaw ku mënula roy dafay jëkke ku mënula roy dafay jëkke ku mënula roy dafay jëkke bés bu ne wax ko waaye wax na dëgg tabarkalla tabarkalla